asalaamaaleykum mbokk yi tey la àllarba fukki fan ak ñeent ci weeru diggi gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sàttumbar ci atum ñaari junni ak nit ak benn fukki fan ak ñeent bokkul ci lim yu fàtte yi lim bu rafet la kon tey ci àllarba ji rafet na ci lépp li ñu ciy tere tere watandiku moom àllarba mooy ko ca watu wala ku ca tàggoo wala ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci seytaane ba duma juumloo ca waxtu faatu ga allahumma inni audu bika an yataxabatani seytaanu inda al mawt xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na takkaayul aji gëm ëllëg ca àjjana fi am njàppam daan yem fa lay yem xadis bi muslim moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tablaxu lxilyatu min almumini xaysu yabluxu lwudu rawaahu muslim waxtu julli suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak ñaar tisbaar benn waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juróom benn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 jant bi dana fenk juróom-benni waxtu wu tegal juróom fukki simili ak juróom-ñaar di soo juróom-ñaari waxtu wu tegal benn simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin